léegi monsieur le ministre léegi bi ngay wax ci axe yi nga xam ni moo mooy lu diplomatie ci Sénégal euh, tuddu nga euh, ni nga xam ne noonu la ñu dëkkandoo ak yenn réew yi euh, ku ne xam na ni Mali bokk na ci ñu sës ci ñun. Mm. gis nañu li nga xam ne moom moo fa xew. Mm. te Mali li ñu boolee xam nga dafa bëri. Mm. suñu indépendance daanaka ñoo ko bokk suñu devise sax ñoo ko bokk suñu drapeau bu du duloon étoile bi daanaka kenn du ko xàmmee. li nga xam ni yaa ngi fay dégg yaa ngi koy dégg lan moo ci taxawaayu Sénégal parce que vraiment dégguñu ko ca jamonoy ATT IBK. nekk fi lan mooy lan moo indi wuute wuute bi ci taxawaay bi nga xam ne Sénégal war na ko taxaw wala dañu taxaw taxawaay boo taxawaay boo xam ne nit ñi duñ ko xam wala duñ ko yëg. non d' xam nga Mali réew mu am indépendance la euh, di suñu dëkkandoo donc ñun dañ ko war a respecter tout d' abord respecter seeni institution am nañu ay jafe-jafe Sénégal lañ ciy participer parce que tey jii defe naa suñu contingent extérieur bi gën a rëy mi ngi Mali kon mhm. la xew Mali yitteel nañu lool lool. jamono yi ñu toll nak am nañu ay jafé jafé euh, sur le plan intérieur jafé jafé yu jëm ci walu politique CDAO dugg na ci loxom Sénégal mi ngi ci bir CDAO donc ñu ngi suivre situation bi de très de très près di encourager Maliens ñu waxtaan seen bir mais Sénégal diplomatie ak politique étrangère dafa wéru ci du dugg ci affaire u ça c'est extrêmement important même bu nekk ay do lañu même bu nekk ay xarit lañu même bu nekk ñu ngi waxtaan ak ñom liñuy def ak ñom liñuy ñuy waxtaan ak ñoom. dafay tegu ci yoon ci respect Gambie Gambie demeewul woon aussi. ah non absolument Gambie demeewul na non. Gambie non Gambie demeewul woon non. Gambie mandu woowu ci comme ni mako expliquer ni expliqué nii. pourtant Gambie dafa amoon souveraineté mom itam. non Gambie amul lon benn problème Gambie la fa amone moy Gambie dañoo def sen élection. Mhm. Gambie tan ka fa Djalgatin Birmi, mbir mi. Ah. Sénégal am mandat wu c'est extrêmement important Sénégal jugul rek ak jubbam ne damay dem Gambie sunu soldat yi fa nekk tey wala yi nekk ci commune yi dañu am mandat wu donc lépp loo xam ne def nañ ko Gambie. c'est tout à fait légal. Mm-hmm. et que dëppoo na ak la nga xam ni charte au euh, CEDEAO ak chaque organisation des nations unies nangu nañ ko vraiment amul benn problème foofu. Mhm. Hmm. d'accord Abdoulaye. ci Mali monsieur le ministre xam nga souvent réew bi gën a jege. Hmm. dafay top ay intérêt aussi pour ñu taxawu ko même buy am mandat CDAO fan yi président Macky Sall ak yeneen jiiti réew namoon nañoo dem sax dox tanki jàmm. tay tanki jàmm yoyu lan la wara a mën doon ci digënté ñi séq. Euh, werante bi nga xamné mo moo am Mali diggante président IBK ak opposition bi nga xamné euh imam Mamadou Dicko moko jité té di laaj président bi démissionné lan mo ci wara nek taxaway bi. wa taxaway bi fi nek nekk fa ya fa nekk mais il faut que aussi ñu nangu ben affaire en Afrique globalement on doit respecter la légalité et ça c'est extrêmement important bu nekké rek nangu nañu toujours des changements di am di amé yenn anam yi c'est baaxul ci démocratie mhm. maintenant y a un problème c'est des problèmes intérieurs ñom ñoko encore à régler ci sen mais position au Sénégal ci lolu respect légalité la légitimité est-ce que la situation au Mali jural na len jaxaré bo sécurité parce que xam nañu li nek Mali ci est wàll bi nga presque état amatu fa ñom encore le waxal sen problème terrorisme bi faut le ko est-ce que njàqare la supplémentaire pour le Sénégal du voisin direct Mali te bokkuñu ci G5 Sahel bi nga xamanteni moy top to wàllum terrorisme ak sécurité ci ci ci Sahel bi yëpp. xam nga le président Macky Sall c'est c'est d'abord un chef d'État qui est visionnaire G5 Sahel c'est vrai que bokkuñu ci mais ci wàllu karangé tay jii Sénégal jël na ay matukaay. te duñ juumte nga yaakaar ñak ci bokk ñak bokk ci G5 boobu est-ce que jàppaloo

waye lañu ñu yaakaaroon ci G5 Sahel pour dina mën a am capacité euh, protéger réew yëpp G5 Sahel am defu malheureusement donc fi mu nekk ni Sénégal posture am doon na posture bu baax moom mooy nekk dans l'action nous sommes présents au Mali kenn ëpp ñu fa ay ay ay soldats situation bi am Mali ñu ngi ciy bàyyi il faut que nous aussi ñu préserver